عليك صلاة الله ثم السلام فبرهام جد عاشق فيك واميق Thank you. am na ay jàmbaar yoo xam ne mën nañoo taxaw ñu ñëw mën nañoo taxaw ci xelamam ak seen i pexe ko da ci président de la république da ko dalee ci médecin yi da ko dalee ci infirmier yi ñoom ko wax mais organiser ngeen ko ko ba ñu ñaa ngi nopp bañ neenal jàkka bañ a neenal jumaa ji te ni ñu ko bëggee na ko defee loolu wax dëgg yàlla dama moom bu ma ñëwee tey jii naa ko wax parce que nag ku gërëm moo garab nit ki bu la defalee teral la yombalal la lu nga xam ne nii waroon na ko jafel bu ñëpp teewee war nga ko transmettre bi loolu bi na ko daal dëgg yàlla ci turu président de la République ñu ko ci gërëm di ko ci ah. Ah, lii nag ngeen def muy teraanga bu ne peut-être yeggoo ci sax mais am na leneen lu mu àndal loo xam ne ñu ñuy jëfandikoo la ci dund loolu wax nañ ñu ko léegi ci yëpp je crois que dinañ ko boole ak lii loolu moom fii lay des ci li nga xam ne ñoo ko yeyoo lii nag dana def au niveau national pour ngeen participer ci Covid force Covid 2019 organisation. Voilà, peut-être que vous me permettrez un petit mot en, en français pour la presse. Je voudrais vraiment, au nom de Monsieur le Président de la République, le Khalif, M. Ahmed Dames, Khalif de la pour ce geste au Cela ne va droit au que tout simplement, ça vient d'une bonne personnalité religieuse qui pouvait tout simplement dire que je vais me limiter Mais non seulement cette personnalité prie, nuit du jour, pour qu'on puisse pays, goûter d'or vraiment de l'Afrique, du monde, cette mais elle a aussi participé de manière très honnête et religieuse du point de vue donc de vivre aux nécessités, mais aussi du point de vue en numéraire pour un montant de 10 millions de francs CFA destiné à la lutte contre le Covid-19. Et soyez notre interprète au nom de Jésus, nous au Père à qui vraiment nous rendons un hommage vérité. Et nous prions à kenn waxu ne ko kenn waxut ko génagul yàlla dem te bàyyi fi réew bàyyi fi ñëpp jàmm waaye comme ba nga xamee ne xeex bi dafa laaj ay am-am ak i man-man dëgg la président jël na ay pexeem réew mi yëpp tim ku nekk yaa ngi taxaw ci sa façon bi nga ma sëriñ bi lim def sax ëpp na lii waaye bi nga xamee ne yàlla tagg na ci alquran alladina yunfiquna bi billayli wa nahaari sirran wa alaniyatan lahum ajruhum inda rabbihim fala xawfun alayhim wala hum yahzanun yàlla tagg ñi nga xam ne dañuy dundale seen xaalis ci lu nëbbu ak ci lu feeñ ci guddi ak ci bëccëg lii nag lenn la ci li feeñ jublu ci xamal président mais xamal askan bi yëpp ne ñu ngi ànd ak réew mi ci niñ àndeek réew mi ci bépp bànneex noonu lañ àndeek réew mi ci bépp tat-tat ak jafe-jafe boo xam ne réew maa ngi koy jànkuwante tey feebar bii dafa nekk loo xam ne lu critique la loo xam ne dafa laaj nit ngi seen boole mi doole ñu boole ko bu xeex ak lii nga xamee ne sëriñ bi taxaw na jaboot bi yëpp taxaw ci ñaan yàlla ak def soppandiku yi nga xam ne dëgg-dëgg mag ñi baaxoo woon nañ ko di ko def ci lii te yàlla it baaxoo woon ak ñun ne ci lépp luñ ko def yàlla def ci sutura loolu ñu ngi ci waaye wan président ne ko ñu ngi àndal ñoom fii ci zahir bi lii symbole la muy chèque boobu nga xam ne 10 millions joxe na ko pour mu jëm ci lutte contre Covid bi Covid 19 bi ak ci génnee cent dix tonnes pour dimbalante ceeg askan bi comme na nga xamee ne génnoon na 10 millions. génn ci ay masque ay gel yi di tasaare ci daara yee ci askan bi loolu lenn la ma ne ci li def waaye la nga xam ne moom lay def ci biir ci baatin di ko ñaan yàlla sant ko njaboot gi topp gi rakkam yi ñoom ñëpp ñu taxaw ñu ngi ñu ci ko def ba bañ yàlla ni teggi ne bii teggi loo xam ne ñëpp nañ teg seen bët yàlla defal nañ ci xabaar ñu ñaan yàlla yàlla génnee fii feebar bi musal Sénégal musal jullit ñi mën a nekk waaye musal àddina bi yëpp ndax tey àddina benn kër la du dal kenn rek dal keneen kii waaye comme ni ma ko waxee lii tari rek la ci njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa amoon ci Madina Munawara ñi ñuy wax al ashari yi na dañ daan def ñu ne bu jamono jafee dañuy otante ñun ñëpp ku nekk génnee li nga am fekk am na ñoo xam ne sax amatuñ dara ñi am génnee liñ am ñi boole ko séddale ko ñëpp emaat ci yonent bi rafetlu ko sallallahu alayhi wa sallam ba wax ne ana minhum wa hum minni ñooñu ci man lañ bokk man ci ñooñu laa bokk ñun nag bëgg a bokk ci ñooñu nga xam ne yonent bi nee na ci ñoom la bokk ñoom it ci yonent lañ bokk lenn lii lenn rek la waaye ku nekk sax euh, sa man-man ci biir dëkk bi yaa ngi taxaw ci taxawaay li nga xam ne moom ngay taxaw waaye sëriñ bi nag bu defee lii loolu mooy ne mu ngi oo mbooleem topp gi rawatina taalibe yi di leen wan ne ku nekk la nekk ci man-manam ci kàttanam ci dooleem ci xam-xamam ci am-amam na ko bokk ànd ak réew mi ci xeex ak jàngoro ji nga xam ne noonu la te noonu bu am doole la waaye bu ko ñëpp songandoor mu daanu yàlla yàlla def loolu salaamaaleykum. monsieur le gouverneur. lii bi lii de la vallée la. de qualité supérieure. yónnee nañ cent dix tonnes. léegi consommé local bu président bi wax. boo gisee ñu def ko monsieur le gouverneur. Mhm. mooy ne comme ni ko sëriñ bi waxee léegi. Euh, eh déglu leen waay. bokk na ci baara xam ne moom la président xam. ndax bu ñu jënd ceeb. moom moo ko jënd ceeb. waaye dama seet producteur yi nga xam ne ñu ngi bay ceebu yow. bu ñu jëlee sax du toog. donc lii Sénégal lañ ko waxee. lii lii danaa bari de. ñu ngi jógee ba ca. déjà tool la jógee kon ñu def ñu jënd ñaari façon. di sant di sant gaañ war nañ ko fi dëkk. dëgg yàlla dëgg yàlla loolu daal di wér bu ñëwee ci yow am na lu ñu la waxoon. ba nga tëddal ci ne stade de projet. voilà stade projet boobu nag. ngeen réalisé lenn la ci def. saa di toon yi mi ngi nii quittance bi mooy versement 10 millions yi ñuy jox ñu.